docteur Bokar Mamadou Daf directeur de la santé de la reproduction et de la survie de l' enfant. li li ñu waxagum fii mooy que tey euh, ak démb ak tey dañu daje woon fii pour euh, maanaam euh, saytu liggéey bi ñu doon def ci wàllu xeex ndeetalu jigéen ñi ak fees fexe aussi ba communauté yi ñu organiser wu. ci ndeetalu jigéen ñi dañu defoon li ñuy wax lutte contre hémorragie du part maanaam jigéen bu wasin ba pare di nàcc. gis nañ ni que ñun ci structure de santé ñu ngi ci doon def leen ay jéego mais ñu yaakaar ni suñ ko taxawalee ci communauté bi mun na am ñooñu gaaw a ràññee mbir mi def ci dara danañu dimbale pour que loolu bañ a garaaw loolu nag biñ ko defee gis nañ ni am nañ ci ay résultats yu baax ci réew mi gis nañ ñi acteurs yëpp aussi ñu ngi ciy intéressé wu mais gis nañ aussi que ñun aussi dañu war a euh, yokk suñu surveillance pour euh, maanaam ñu fexe ba euh, nit mbir mi mu aw. ni niñ ko buggee maanaam am na ay résultat mais am na yu ci xaw a des tuuti yi nga xam ni yaakaar nañ ni ñun acteur yi notamment infirmier chef de post yi war nañ ko mun a régler sur le terrain loolu mooy benn pàcc bi beneen bi mooy organisation communautaire mooy SEVAC yi maanaam ku intéressé na chef de village yi yeneen acteurs yi yeneen leaders yi ñoom ñëpp pour que jigéen ñi nga xam ne jigéen ñu wérul yi xale yi ñu mun leen dimbale par pour que son yi ñu a am ñu mun ko aussi ndeetal yi ñuy am muy femme enceinte yi maanaam décès maternel wala xale yi nga xam ne amuñu cinq ans ñuy faatu pour que ñu mun a recenser lépp suñ ko recenser ñu wax gox bu ne lii moo fiy xew ñu fexe ba xam lan moo fay xew lu tax mu fay xew est-ce que communauté bi la est-ce que ñàkk transport la est-ce que ci structure bi la nekk est-ce que ñàkk personnel la su ko defee nag ñu mun a am diagnostic bu wër. loolu danañuy dimbale aussi pour que ñu mun a euh, aar population bi loolu moo taxoon ñu daje fi gis nañ ni aussi ci côté boobu am nañ ci ay résultat yu baax a baax danañ ko poursuivre yaakaar nañ ni programme yu ñuy nas loolu dana ci am pàcc bu am solo.